alaaji mbay nee na góor gi alaaji mbay nee na alaaji mansour jak saaw la ma njëkk a wonee yonent bi eh, seydi xaaji maali eh, cheikh sidi ahmada tidiane yàqazatan laa manaama te nee na dog ba mu ma joxoon ci salaatul fatiha matut téeméer kon gis nga mag ñi ñun nag dañ fi nekk dog bu nekk daa ñu ko laal téeméeri junni da gis ku ko si kër ci bés bi nelaw ba biddanti waaw si sa baaraam yi moom nag sii de Hadji Malick moo ko jàngaloon xeetu turu yàlla yëpp moo tax mu amoon ci loo xam ne kenn amu ko ci daf ko jàngaloon xeeti turu yàlla yi jàngal ko xeetu talsam yi jàngal ko xeetu diiwaan yëpp mm-hmm. ba daan na wax ni moom Alaaji Mansour daan na wax ni yóbbu nit ci yàlla moo ma gën a yomb tibb ci suuf si jox ma mm-hmm. jàpp ci loxol nit yóbbu ko ci yàlla mu ne moo ma gën a yomb tibb ci suuf jox la ndax xaal bu mu ma neexee ma yóbbu ci yàlla fu mu ma neexee ak nu mu ma neexee loolu ibaadaat moo ko ko may wax nañ ne nekk na fa bés di jaamu yàlla bi am góor góor gi xam naa ko waaye du ma tudd turam góor gu ko fekk ci néeg bi di ko tooñ di ko kale boobu muy góor gaa ngi ci xaal nag mu di ko kale ne ko Mansour yaa ngi fii rek di lekk pom mu ne ko sa tànku càmmoñ bi bu mu fekk si bu ndeyjoor bi buy fekk si bu ndeyjoor bi loo am ci yàlla dinaa ko nangu xàmmee woo ku tal lekk pom ak ku la talul lekk pom góor gi ne rëtt taxaw juróomi minute sëñ Haj Mansour door ko wax yegg mu yegg si mu ne góor gi ne ko dama doon kaf rek mu ne ko yàlla xamut kaf te xaal bi mu ma fekk du xaalu kaf Haj Mansour ci àll yooyu la nekkee jak saw mag ñu bari fa mag ñu bari fa la leen tarbiya mooy ñi ma la wax ni Seydi Jamil fa la nekkoon ak moom mhm. góor gi Alaaji Mbay fa la nekkoon ak moom mhm. góor googu Jóob fa la nekkoon ak moom mag ñu bari fa la leen Alaaji Mansour tarbiya ci yàlla foofa ca Jaksaaw bi mu fa jógee nag bi mu amee vingt quatre ans ñaar fukki ak ñeent mhm. ku daan liggéey la ci ñaqam këram gi ci gël tàppe bii ci Gueule Tapée mhm. fii Serigne Mbaye Mansour dëkk tey mhm. te Chérif Mouhamadoul Habib dëkkoon fa mhm. kër googu alaaji Mansour bi mu koy jënd ci xaalisi boppam vingt quatre ans la am hmm? vingt quatre boobu ci la toll ak booba ni xaalis jafe ah, ni xaalis jafe ca booba jamono te du àddiya moo ko liggéey ba jënd kër gi ci la jënd ba ca Thiès ñaar yooyu la jënd ndoor mu ngi ko jënd à l'âge de vingt quatre ans loo ciy déggee waxambaane wu ne yàcc faso ne liggéey am na koy lor. am na koy lor na koy lor. Mhm. loo yor yor sa kurus defal dara boole ci waaye kurusu kese mag ñi sax mosuñ ko nangu. da ngay yor kurus gi boole kook leneen. bu ko defee am sa ngor am sa diine. Mhm. moom nag loolu ku ko teel a gëm la ku ci teel a yëngu la. moo tax daawul dépendre ci kenn. Mhm. ñaq boppam rek la daan dépendre yàlla ubbi woon ko nag ba lu mu ci bëggoon rek mu yomb ko. gis nga tey kër googu bokk na ci kër yi gën a placé ci Dakar. lu ko ko may. liggéey ak ñaqam. Mm-hmm. moom Seydi Hadji Mansour noonu la daan jaabante nag diggante Tiwaawan Ndakaaru Tiwaawan Ndakaaru ci dund Seydi Hadji ba léeg-léeg Maodo yónni ko dakaar am na mag mu mos a ñëw di am lu muy sàkku mm-hmm. ci Seydi Hadji Malick Maodo ne ko demal ci Mansour mu bindal la ko. Mm-hmm. bi mu ko ko waxee mu ne ko ah xeebuma ko de waaye at yaa néew lool mm-hmm. te li may sàkku réy lool mu ne ko ah yàlla dogal na de fii luñ fiy bind ñemewuma ko jaarale fu dul ci loxol Mansour ndax yonent bee ma ko wax Maodo ay wax de mm-hmm. mu ne ko jëmm ja tuuti na waaye ko yonent bi miin la mm-hmm. dégg nga wax bi ne ko jëmm ja tuuti na waaye at ya néew na waaye ko yonent bi miin la fii daal luñ fi bind lu ne mhm. moo koy bind ci loxoom ijaazaat yi moo ko daan bind eh, rasail yi mhm. moo ko daan bind lettres yi mooy bind ijaaza yi mooy bind tontu lettres yi moom la lépp moom la ko Seydi Hadj Malick wakiiloon ci dundu Seydi Hadj Malick wax nga ba tudd mm, këram yi liggéey moo ko may dëgg la tabaarakallaahu am na solo mhm. kii bi muy am ñaar fukki at ak loolu himma dëgg la yitte la Euh, yittee nit nag moom mën naa yóbbu nit fu ne mhm. himmatul insaan xayratun ala jamil akwaan mhm. waaye xam nga am fatxu itam ci la bokk te yaakaar naa ni fatxu boobu jaamu yàlla moo koy maye mhm. fatxu nag borom baati na koy am xam naa baatin lu jafee waxtaane la mhm. ndax lu biire la ni mu tudd rek la tudd mhm. moo ko sirru ñoo yem sekkare ni mu tudd rek la tudd mhm. moo tax yonent bi di wax ni man katama sirrahu balaga muraadahu képp ku na buy sekkareem rek yeggale yéeneem waaye xam naa ku daan jaamu boroomam la waaye ku amoon fatxo la fatxo ku Seydi El Hadji Mansour waaw mooy li ma la junj noonu waxuma la sax fatxo waaye ubbi nit sax dafa gaaw daf ko yomboon xam nga nit mën naa am fatxu te du mën a ubbi waaye ubbeeku di ubbee moo gën a jafe ci wàllu yàlla mm. te yàlla daf ko ko mayoon mu gaaw ci nag bu ko neexee benn fan mën na la ci ubbi mm. kay facha nu mu ko neexee mm. mu ngi dépendre ci yow mi ñëw ban comportement nga am bi ngay ñëw ndax moom booy ñëw daf koy xam ban comportement nga am yàlla def mu ubbeeku woon nag nekk géej am fatxu lépp yomb ko waaye li ko lépp di yomb mosu ko wane ci kanamu magam yi mosu ko wane ci kanamu sëñ Babacar Si li tax sax ñu tuddee ko inspecteur u tariqa bi hmm. mooy génn yu bari yi mu daan génn di nemmeeku yu muqaddam yi di nemmeeku muqaddam yi ak mbokku taalibe yi fu ne Alaaji Mansour dafa daan dem hmm. moo tax ñu tuddee woon ko inspecteur u tariqa bi hmm. waaye loolu ci zaahir la waaye ci baatin nag sëñ baaba kër si moo wax ci gémmiñam ne mm-hmm. alaaji Mansour inspecteur la ci tarixa bi kum dog nga dog kum jokk nga jokk loolu mu ngi génnee ci làmmiñu sëriñ Babacar si mm-hmm. te kooku du waxantu yàlla dogal nag alaaji Mansour bi sëy bi Cheikh Al di dund mm-hmm. léppam Cheikh Al la woon lépp sëñ mosta génn njigalal sëriñ Babacar si lu jafe dégg la te dina ñëw ci bu ñuy wax ak bu ñuy wax ci sëñ Habib ba yàlla dogal na bés alxaaji Mansour am ku mu am lanteel am lante bu metti sax dama koy junj noonu rek ba lu ne xajoon ca kilifa ga mu am lanteel nag ñëw seet si Seydi Alxaaji Malick Eh, astafurlah seet ci sëriñ Babacar si. Mhm. pour waxtaan ak moom mu ne ko ah booyee boo gaaw de man suura nga ca ndakaaru biig la fi jógee dem booyee boo gaaw seet ko de ndax inspecteur la ci tarixa bi kum dog nga dog kum jokk nga jokk. gaawal balaa yooyu benn gaawal di ci xew. Mhm. ci la kilifa gi ñëw fekk ko fii ci gël tàppe waxtaan ak moom ba gindee ko wanteeg moom lañ mën soo ne ko am nga sens. bu la bër seetaatoon te ñëwoo rek loo am ci yàlla ma nangu ko waxuma la sax tariqa bi kon ci wàllu moo lay loolu ku amul benn ubbeeku ci yàlla mënuloo ko mais Chérif euh, boo ñuy nettali doomi Seydi Alxaaji Maalik yi mhm. radiyallahu anhu tey ñu ngi waxtaan ci Alxaaji Mansour mhm. mais melokaan wi ak nit kii nga ñuy jox ni mu ni mu doon dundee mhm. euh, kon way juróom Seydi Alxaaji Maalik si moom moom ci ban dimension lañ koy mën a teg parce ku ku maanaam garab gu meññi meññeef mu mel nii moom garab gi mooy kan. ok loolay wax bi. moo tax dégg naa sëñ Cheikh dina koy nettali al maktum sëñ Babacar si ne moo ko waxoon sëñ Cheikh El Hadj Abdou Aziz daan na ko nettali moom it daan na wax ne mag ñi buñ mosaan ñëw di di di tagg Seydi El Hadj Malick da ne teel na bàyyi leen ba ma màggale man sama meññeentum bàyyi laa sama mbott yii bu ñu màggee ci ngeen di xam man lan la mhm. waaye mënu leen koo xam teel na kon nag bi sëñ Babacar si màggee ba doon lim doon xam nañ kuy Maodo mhm. bi Alaaji Mansour màggee ba doon li muy doon xam nañ kuy Maodo sëñ Abdu noonu sëñ Abib noonu ba ñii fi nekk noonu ndax ñëpp njobootu Maodo lañ mhm. waaw kon Seydi Hadji Malick beneen dimension la gis nga euh, ci gàttal booy wax Seydi El malik Malick naan kenn xamu ko Cerno Yaxya lii ca caaro yi mos na ma nettali ci gémmiñam damay eh, baaba Seydi El Hadji Malick mu ne ma am na chaise yu wilaayaam buy flotté ci jaww ji mu ne kenn toogu ci ba fi may waxee ak yow ci lii Cerno Yaxya mu ngi ma ko wax mille neuf cent quatre mille neuf cent quinze mu ni Seydi Hadj Malick am na seize bu mu bu bu ci seize villages yi yoo xam si ba tey kenn toogu ca. 1995 la ma Thierno Yaxya wax lii ci néegi baraagam ba ca Thiaroye mm-hmm. mu ne ma baaba baaba rek la ma daan wax baaba Seydi Hadj Malick neexul jot de mu ne am na seize wilayaam buy flotte ci jaww ji ba fii may wax ak yow kenn toogu ci. lu jë lu naqaree dégg la lu naqaree dégg la mu ne ma baaba ba fii may wax ak yow kenn toogu ci te lii may lay wax 1995 la ma ko Cerno Yaxya wax Seydi Hadji Mansour donn baayam Seydi El Hadji ci ñaari fànn donn ko ci sharia bi donn ko ci xaqiqa bi sëñ kër Si di dund di xalifa te yaakaar naa ñu amoon relation lañ parce que yaa ngi may tudd léegi ci biir waxtaani ni mm-hmm. Seydi Jamil ci Alaaji Mansour la nekkoon li ma lay tegtale nii kañ sëñ Babacar Si Seydi Jamil Alaaji Mansour la ko joxoon Serigne Cheikh Tidiane Si mm-hmm. mu jox ko Cheikh El Hadj Abdoul Aziz mm-hmm. Serigne Mansour mi mu jox ko turandoom sëñ Abdou mu yaral ko boppam al amin ñii la sëñ Babacar séddale woon kon relation yi ba mu gënee nekk tout tànk la mhm. ba fàtte leen ba ñu réer ko mhm. nee na jëmmi bis bi Seydil Hadji Mansour di waaj wuy ji boromam mhm. la woolu Serigne Cheikh mu ñëw rek mu jël xasiida yi la ko gardeeloon pour wax ni moom ku yitte woo woon njabootu Serigne gi la ak euh, Alaaji Abdou ak yu Habib yi moom li moo moo mooy baatu inspecteur bi rek inspecteur day inspecté mhm. loolooy baat bi lim nekkoon xalifa nag loolu dañ ciy taxaw tuuti rek ndax nit dana doon nit nit ki du dund loolu la waaw loolu la ñuy wax xilaafatul haaruniya ci tariqa bi mhm. Seydi Hadji Malick doomam yëpp xalifaam lañ waaye xalifatullahi lañ waaye xalifatu rasul lañ waaye xalifa Cheikh Sidi Ahmad Tidiane lañ mhm. te lii may wax du ci bakkan laa ko teg Cheikh Sidi Alhaaji Malick moo bind lettre Cheikh Sukayri ne ko dama bëggoon nga defal ma xalwa laajal ma yonent bi ndax bu ma fi jógee samay doom danañ ma doon ndax néew na ko fi jóg ay doomam doon na ko nekk xalifaam néew na yonent bi amoon na ko ndax bi mu fi jógee sayyidatuna Fatima mhm. mooy xalifa mhm. <laughs> loolu ñu bari xamuñ ko de ah Seydina Abubakar mooy xalifa ci zahir waaye boobu maqamatul uzma mhm. mu yen bu mag bi nekkul xutbul fardul jaamia mm-hmm. Fatima ko yenu woon pendant six mois mm-hmm. Seydatuna Fatima moo ko yore pendant six mois di xutbul fardul jaamia mm-hmm. moo tax Seydina Aboubacar mosul def lum diisoowul ak moom Seydina Aboubacar mosul def lum duggul diisoo ak Seydatuna Fatima ba mu jox ko ci ndigal mu door a génn wax wala mu door a génn def parce que xam na ne boobu Fatima moo yenu yen bi ndax amul benn yonent bu mos nekk yonent nekk xutbu si waa Seyduna Muhammad sallallahu alayhi moom rek moo mos a nekk yónnant incarné waale nekkaale xutbul fardul jaamia bu dul moom yónnant bu mu mën a doon da ngay nekk yónnant xutbaan yeeg yi keneen a koy yor. keneen ci tënk rek damay tënk yont yàlla Moussa ba mu nekkee xutb ba mu nekkee yónnant xutbaan yeeg ku ko yoroon. Mm-hmm. waliyu xadir moo tax mu gàddu taalibeem ba yuusa mm-hmm. pour ñu gisi waliyu xadir mm-hmm. foofu dama koy tënk foofu laa ci yem ndax taxu ñoo jóg yont yàlla Suleymaan ba mu nekkee yónnant kan moo nekkoon xutbu ba hmm. ka yàlla junj ci alquran hmm. ka waxoon ne hmm. ana aatika bihi qabla an yartada tarfuka kooka moo doon xutbu ca jamonoom yonent bi rek sallallahu alayhi wasallam moo nekk yonent nekkaale xutbu loolu day wone ceru yonent bi bi muy génn àddina nag sayyidatuna Fatima moo yenu yen bi nekk xutbu waaye kii di xalifa Seydatuna Fatima six mois après mu génn àddina Seydina Aboubacar nekk xalifa loolu nag lañ doon doon nanti ba ci Cheikh Seydi Ahmad Tidiane mhm. moom nag mu nekk xalifatul xulafaa yi waaye nag mu gi nag mu am ca leneen lu kenn amul mooy nekk nag moom Seydina Cheikh moom itam am beneen marta ba bu ñuy wax alxatmiya wal katmiya ci biir xutbaaniya gi mhm. moo tax moom damay ñëw di wàcc si rek moo tax Cheikh Seydi Ahmad Tidiane Euh, Aliou Harazim Barada moo doon xalifaam waaye loolu la ñuy wax xalifatul Haaruniya mm-hmm. dafa doon Seydina Cheikh fekk Seydina Cheikh a ngi dund. Mm-hmm. mu génn àddina bàyyi fi Seydina Cheikh loolu ñu ngi ko jële ci yoon yonent yàlla Moussa ak yoon yonent yàlla Moussa yonent la woon Haaruna di yonent ñoom ñaar ñu ànd yoon yonent yàlla Haaruna doon na yonent yàlla Moussa te moo ko njëkk faatu. Mm-hmm. moo tax ñu tuddee ko xilaafatul Haaruniya loola tamit moo wàcc ba ci Cheikh El Hadj Omar Maodo nag jaamu yàllam ak cëram. li ma lay li nga doon laaj. cëru Maodo tax na Maodo incarné loo xam ne mën naa ne tarixa bi kenn amu ko ci. parce que ñu ci bari Seydi Cheikh Ahmad Tidiane bi muy génn àddina ku mu désigné woon dafa noon sama xalifa sama ginnaaw Cheikh Mohamed Al Ghali la. ba am ñu koy weddi. Seydina Cheikh génn àddina fekk fa sax Cheikh Mohamed Al Ghali ndax da fekk mu mu mu mu ay mu ayee ji woon ci beneen soxnaam. la daloon Seydina Aboubacar ak yonent bi moo dal Cheikh Mohamed Al Ghali ak Cheikh Sidi Ahmad Tidiane yonent bi bi muy génn àddina dafa fekk Seydina Aboubacar aye ji ci soxnaam bu nekkoon ca gannaaw Medina fa la ko xibaar ba fekk Cheikh Sidi Ahmad dañ ci nañ ko ba mu am ñetti fan ñu door a yóbbul xibaar bi Cheikh Mohamed Al Ghali mm-hmm. mu jot xibaar bi kon fekk ko foon mu nga woon ca soxnaam ca séetam mm-hmm. ñu bari nag biñ dencee Cheikh Seyd Ahmad Tidiane ñu ne kon moom lam doon wax ne mooy xutbul maktum xamul sax ki koy doon mu ngi désigné woon ne Cheikh Mohamed Al Ghali mooy xalifaam te fekk ko fi sax mm-hmm. désigné ne moo koy jullee te fekk ko fi ndekete ci biir loolu Cheikh mu ngi leen di woon boppam Seydina Cheikh du kenn kenn du moom mm-hmm. euh, ci biir loolu Seydina Cheikh di leen woon boppam mm-hmm. bi mu amee ñetti fan ci bàmmeel fekk dafa waxoon ne bu ma génnee àddina sama njaboot gi nañ ñibbi ca saxaraa ba nañ delluwaat ay numaadi mhm. daan na wax sax bu leen kenn may soxna ba gaa yi ne ko waa yow xanaa da nga bañ ñu jaxasoog sa njaboot mu ne déedéet Fass dëkku capital la mhm. ay numaadi dëkku kaw la mhm. te charia nanguwul nga takkoo takkee ci kaw gi te nanguwul nga takkee ci capital bi yóbbu ci kaw ga lu bari nag léegi ñu koy def ah, moo taxit problème yi di bari ci sëy gis nga Seydina Cheikh ni mu teelee am civilisation mu ne leen charia nanguwul nga takkee ci capital yóbbu ci kaw waaye nangu na nga tappi takkee ca kaw ga indi ci capital bi mu ne comme Fass nag Fass booba du capital ba léegi sax du capital mu ne leen comme Fass euh, capital la ay nomades bi dëkku kaw la nanguwuma ngeen may seen njoboot sama njoboot gi ngeen may leen soxna ñu yóbbu leen ca kaw ga charia bëgg ko ci loolu ñuy xëccante di xëccante bi xale yi ne dañuy ñibbi kon dañuy yóbbaale seen baay ndekete yoot nañ ci guddi gi muy Seydina Cheikh Mouhamadul Kabir mhm. ak Cheikh Seydi Mouhamadul Habib mhm. ñoom ñaari doomam yooyu ñoo fi desoon ci góor ñi Seydina ñu yoot ci guddi gi nag dem sulli góor gi bi ñuy génn ak moom nag sulli nañ ko bay génn dëkk bi mhm. Seydina Cheikh ci kiraama yàlla Seydina Cheikh am muqaddam ak wali yum feeñu ci guddi gi ne leen gaaw leen lu ngeen gaaw ma xem ndax xale yaa ngi may yóbbu Mm-hmm. ñooñu tamit fëggante kenn ku nekk yee sa moroom ñu topp tànku xale yi. Mm-hmm. biñ leen toppee bi fekk ñu génn dëkk ba. Mm-hmm. ñuy xëccoog ñoom nag du ngeen dem dinañ dem du ngeen dem di ngeen dem du ngeen dem ndekete foofa ñu taxaw di xëccoo mooy yoon wi Cheikh Mohamedal Ghali di jaar pour ñibbisi faas. mu ñëw rek yem ci ne lu xew ñu nettali ko mu ne acca leen ñu dellu faas ñu dellu faas ñëw. mu waxta ñaan xale yi waxtaan ak ñoom muy Cheikh Mohamed al Kabir ak Mohamed al Habib mu ñaan leen ñu may ko fañ denc tey Cheikh Sidi Ahmad Tidiane Cheikh Mohamed al Ghali moo ko désigné tegaat ko ndax ci charia kuñ sulli balaañ lay suulaat dañ lay jullee kon la Seydina Cheikh waxoon am na Cheikh Mohamed al teg ko ne sàppe leen ñu sàppe mu ne allahu akbar jullee góor gi denc ko mooy fañ denc tey Cheikh Sidi Ahmad Tidiane kon la Cheikh Sidi Ahmad Tidiane waxoon am na kon Seydina Cheikh li ma ci jublu rek mooy ba muy génn àddina mm. dafa noonu Cheikh Mouhamadoul Ghali mooy xalifaam mm-hmm. kon te ñaari doomam yaa ngi fi woon mm-hmm. muy Cheikh Mouhamadoul Kabir ak Mouhamadoul Habib mm-hmm. kon Seydi Hadji Malick teel na xam ne ndikete sa doom doon la yombut yombut mu di ci reyante nag moom pour am ko ndax nit boo bëggee boo bëggee lu kawe rek yàlla dimbali la ci mooy am lu kenn amut. Seydina Cheikh pour mu nekk loolu beneen waxtaan la beneen dimension la pour mu nekk euh, pour mu toog ci maqaam bii tey moo ko ñaan maamam maamam ñaan ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Sidi Ahmad yi ci xutbul euh, ci ci mafatihul kunuz yi rek la bokkoon. Mm-hmm. ndax ndax joxe li ci nekkoon la gis. ndekete bi mu demee nag ba bokk ci mafatihul konosi mu yëg ne xutbu yi ak taab yi ñoo chef mafatihul konosi mm-hmm. mu ne maama man bëgguma ku ma chef mm-hmm. dama bëgg a bokk ci xutbu yi di chef comme ñëpp mm-hmm. maamam ne ko du ko kenn du ko cumuler poste boo xam ne la kenn nanguwul cumuler da ngay nekk rek xutbu wala nga nekk ci mafatihul konosi mu ne ko yow loo ñaan sa borom mu defal la ko ñaan ko man ma njëkk koo nekk mujj koo nekk yonent bi ñaan ko yàlla yàlla may ko ko Cheikh Seydi Ahmad Tidiane nekk xut bu bokk ci Mafatihul Kunuz yi di chaise ñaar yëpp ci moom la njëkk a amee ci moom la mujj amee keneen amatu ko te loolu moo ko ñaan Seydi Hadji Malick ci la sukkandiku ñaan nag bind leetaram gannaaw ba mu ñaanee ba yàlla nangul ko mu xam ne yàlla nangul na ko moom Seydi El Hadji mm-hmm. waaye ci modestie ak falaa yaamanu makrallahi illa al xawmul xaasiroon mm-hmm. kenn du wóolu pexem yàlla ca la bindee leetar nag Cheikh Soukayri lettre ba abiyat ya bokk na ca min baadi abi bakrin suma mansour wa abdul aziz yi summa habibi ah tënk leen ci ñaan nga ci ñaan gis nga wax nañ ne ñim ñim def summa yëpp xamoon nañ ne duñ fi yàgg xilaafatul haaruniya la mhm. mooy alaaji mansour mii ñuy waxtaanee mhm. sum min baadi abi bakrin suma mansour mhm. wa abdul aziz yi summa ah parce que sëriñ Babacar la wax. min min min min min baadi abi summa Mansour. Mm. wa Abdul Aziz. waaw gis nga ko. Mm-hmm. ñim joxoñ ñëpp ne nañ fi dàkk sëñ Babacar ñaata at. Ah, waaw 37 ans ba 57 ah. ans. sëñ mm-hmm. alaaji Abib xilaafatul Haaruniya. xaaji Mansour mii ñuy waxtaanee nag. nekk na xalifa baayam nekk xalifa Cheikh Sidi Ahmad Tidiane te sëñ Babacar si di dund. loolu la ñuy wax xilaafatul haruniya ba bi muy génn àddina moom sëñ Babacar si sëñ Abdou nee na ajjuma bi eh, talaata bi sëñ Babacar si demee Barzak. mu ne sëñ Mansour daf ko woolu alaaji Mansour mii ñuy waxtaane ne ko abdu raj raj lee ko coow li bu ci bokk. takkal sa fit wi te dalal gan ñi yaa fi toog man damay dem Babacar du ma fi bàyyi ajjuma laay dem mm-hmm. na nga takk sa fit wi te dëgëral sa fit wi accueillir gan yi dékku ko ndax yow la ko yàlla yam nee na dënku ko la mu koy dënk kon kooku xam na li xew mm-hmm. mu ne mel kon mel kon juróomi fan la ñuy rawante daanaka juróomi fan la ñuy rawante kon moom xam na bu baax li xew ca la waxee waxam bi sëñ Abdou ne ca la waxee ne dañ foog ne man dama fi toog pour ëkku ëkku mooy jonkonu mhm. jonkonu sëñ Babacar si pour mu dem ma nekk xalifa mu ne soxlawuma ko sëriñ Babacar du du du mag ci man bàyyi ci man la ndem nit ñi yaakaar nañ ko rek nag mhm. buy dem du ma fi bàyyi damay demaale faf mhm. ñëpp ñëpp xam ne Mansour soxlawut loolu bu doon keneen du ko ci fekk si sëñ du mooy nettali Cheikh El Hadj Abdoul Aziz nee na ajjuma ñu toog ci zawiya bi di xadara xadaratul juma nee na biñ bi allah allah bi di waajee jeex ci lañ ko lii may wax si sëñ doo ko nettali ci gémmiñu lañ ko fëgg ci mbaggam ka ko fëgg tudd na turam waaye dama ko fàtte waxtaan wi ma yóbbu nee na mu fëgg ko ci mbàggam mu mu xool ko mu déey ko ne ko alaaji Mansour dem na sëñ Abdou ne wasifa xadara bi daanuma jóg dem ci kër ga fekk dem na ñu defar ko indi ko denc ko foofu ñu denc baayam tey muy Seydi xaj Malick mm. euh, léegi nag euh, liñ ci bëgg a doole xam naa waxtaan baa ngi jeex mm-hmm. tabaarakallaahu waxtaan wi mooy jeex waaye ki ñuy waxtaane moom mbiram du jeex muy mm-hmm. El Hadj Mansour mm-hmm. euh, bàyyi na fi ak njaboot ñi ngi ci nuyu ci occasion bi Eh, tabaarakallaahu muy eh, ki nga xamante mooy sëriñ Babacar si Mansour di sëriñ Bay si Mansour mi nga xam si moo toog toogaayam ba mhm. eh, wutu baayam bi tabaarakallaahu mhm. ñëpp xam ko ci xam-xamam mhm. ak itam dëggoom yaakaar naa bari na loo ñu nette ci biir waxtaan wi ni Alaaji Mansour nekkee woon ko nga xamante ni ci tarixa bi ku taxaw woon temm la lépp lu nar a gaar tarixa bi rek mu taxaw ci yaakaar naa loolu itam jeexital la ci doomam ji di sëriñ Babacar Sy Mansour mhm. bàyyi na fi ak njabootam Alaaji Mansour mhm. njabootam googu la tey mhm. seen seen seen tesitu Alaaji Mansour woowu nan lañ ko mën a xoole ci suñ jamono ji waaw Xaaji Malick loolu luñ sawar a wax la ndax ki mu fi bàyyi bàyyi na fi ñaari doom yiy dund fi may wax ak yow nii muy sëriñ Babacar Sy Mansour bii nga xam ne yal na yàlla guddal fanam fii may wax ak yow nii mu nga ca itali di def tournée bi muy def at bu jot ànd koog Tamsir Sakho euh, doon na ko ci baayam rek nee naa la baayam inspecteur u tarixa bi la woon kon doomu inspecteur du toog warul mën a toog loolu la day inspecteur rek loolu la doon ci baayam mooy boo doon wax daal dangay naan sëñ mbay sëñ mbay Mansour mooy xaaji Mansour ak soxna Fat si bii di soxnaay xalifa bii xalifatu général de tijan Cheikh alxaaji Mansour alxalifa ayyadahu llahu wa nasara yàlla bàyyil ñu ko fi guddal fanam ba ca kanam soxnaam soxna faat si Seydi Hadji Mansour a ko jur ñum mm-hmm. mu juree sëñ Babacar si Mansour mm-hmm. amoon na yeneen doom waaye dañ génn àddina mm-hmm. waaye ñaar ñii fi may waxe yow yal na leen fi yàlla dolli bàyyi ñaar ñii ñoo fi des ak i sëtam nag waaye taxawaay bi seen ma baay amoon ñii muy maam ci ñoom taxawaay bañ amoon ku mel ni sëriñ Habib di doom ci sëriñ Bay Mansour ak sëñ Maodo ñu tuddee ko Cheikh Alhaaji Malick si Maodo bu Cheikh Alhaaji Abdou Aziz mm. mooy taawu sëriñ mbay Mansour mm. fa tabaarakallaahu ak nii ma la xamee laa xamee njobootam ndax samay wëllëre lañ mm-hmm. dalee ko ci Xaaji Malick moomu mm-hmm. ba ci sëñ Habib fa tabaarakallaahu Thierno Seydou Nourou mm-hmm. Mansour am na Mansour kum tuddee maamam kum tuddee baayam kon am na Mansour ak maam Duudu maam Duudu ca fa tabaarakallaahu Euh, itali fi may waxee yow nii mu nga ca Espagne kon mm-hmm. ah ak Sidi Ahmed bu ndaw mu nga ca Tiwaawan ak jigéen ñi fa tabaarakallaahu njaboot gi yàlla moom may na ko njaboot ndax ay sët ci njaboot lañ bokk mm-hmm. te sët yi yaatu nañ fa tabaarakallaahu bu dee ca jigéen ñi soxna Umu Xayri moom sama séddoo la mm-hmm. bu sëñ Babacar Si Mansour ak kaltoom ñoom ñëpp ci njaboot gi lañ bokk ba ci sëriñ Habib bu sëñ Mansour xalifa bi sëriñ Habib si bu sëñ Mansour xalifa général de Tijaan mm-hmm. ah, ci njaboot gi la bokk mm-hmm. ndax yaayam xaaji Mansour a ko jur waaw fa tabaarakallaahu yaayam xaaji Mansour a ko jur yaayam mooy soxna Faat Si mm-hmm. soxna Faat Si xaaji Mansour a ko jur kon xaaji Mansour daal eh, li ma lay mën a wax waaye mooy ku yàlla may la may goo xam ne baawaan na ba daj fépp rek ñëpp ñi ko xamulit ku yër mbindam yi li nga wax léegi di nga xam ne kii te cinquante sept ans la dund lii mu fi def yëpp ci cinquante setan la dund juróom fukki at ak juróom ñaar moo tax bu ma déggee nit ñi naan euh, ku am juróom fukki at guddoo fan luñ bëgg téeméeri at fan wu gàtt te nga def fi li yàlla bëgg moo gën fan wu gudd woo xam ne defoo fi dara waaw <laughs> wala déet yonent yàlla Isa 33 ans la fi def maam Jaara Buso mii 33 ans la fi def Firawna ak lim fi yàgg yàgg ñu ngi koy rëbb mu ngoo Firawna juróom benn téeméeri at dund na ko ak yu teg ak lu teg parce que juróom benn téeméeri at yi la yonent bi wax ne dund na ko te bopp méttiwu ko juróom benn téeméeri at yi teg na mooy six cents ans te fu yàlla rëbbee rek laanatullahi ala firawna la firawna moom la yàlla gën a rëbb ci kaw suuf te moo fi gën a yàgg ci ñi bon boog yàgg fi amul njëriñ def fi lu nit ñuy wax ci lu baax moo am njëriñ fa tabarakallahu xaaji Mansour nag def na fi am na fi ñeen fukki euh, juróom fukki at ak juróom ñaar. ci biir wax ji ñu ngi dégg sax euh, ngay wax di wax euh, Haji Mansour. Mhm. te nga ñu wax ni yonent bi lañ ko tuddee Mouhamadinil Mansour. Mhm. Haji Mansour gi xam nga ni ñu miin ñun ci suñu réew yi rawatina Sénégal. boo ajee Màkka sax lañ lay wax Alaaji. ba léegi dem na ci ba ku aji màkka boo ñëwee buñ la ko waxul sax xëy na mm-hmm. gis ni wàccee sa daraja la mm-hmm. te mën naa am sax ñu ñàkk la ko wax ndax mm-hmm. li sëriñ Cheikh di wax naan eh, alaaji Mouhamed kenn du yonent bi du ko dégg te yaakaar naa bu ñu ko doon wax moom moo ko ne yelloo mais Hadji Mansour elaaji gi dafa taqaloo ak turam ba kenn mënul wax sax lu dul El Hadji Mansour daraja li ko yàlla defal xëy na kon dem dafa dem màkka moo tax ñu koy wax comme ni ñuy wax Seydil Hadji Malick ndax Seydil Hadji Malick dafa moom wax ci yonent bi jëf ci xaaji Mansour dimbali nga ma sax xaaj Malick dafa aji màkka yoon wu neex nag ba muy jógee màkka mu jënd séritie yu bari ne day jaar faas Maroc mu jaar faas ziyaare fa génn góor koo xam ne muqaddam la ci tariqa bi góor gi ne moo waxal boppam mu ne bi xaaji Mansour yegsee alaaji góor gi alaaji mbay benn tey moo nettali li may wax mu ne bi alaaj mook alaaji Mansour ñoo àndoon ca yoon wa mu ne bi alaaji Mansour ñëwee euh, sërice yim jëlee woon màkk pour jox ko góor googu muqaddam boobu ca faas mm-hmm. nee na bi ñu yegsee muqaddam bi dafa jooy jooy yu métti ne ko ñetti fan a ngi nii xetu Seydi Hadji Malick di ma xeeñ mm-hmm. kon munoo woon a ñàkk a ñëw fii mu ne ko toog naa ñetti fan xetu Seydi Hadji Malick di ma xeeñ Seydi Hadji Mansour kontaan te booba màkk la jóge jaar Faas kontaan yëkkati lam indi woon ci sëriñ ca jox góor gi góor gi jël ko ne ko jël naa ko waaye doomu Seydi Hadji yàlla xamal na ma ne kum jox waroo ko jël ndax seeni ba mu ne góor ga delloo ko ko yëkkati waat luy àddinay teraanga jox ko alaaji Mansour mu ne alaaji Mansour ñaan góor ga nag ne ko may ma juróomi téeméer yi xoolal ci jamono booba ca jamono booba nee na alaaji Mansour génnee juróomi téeméer deux mille cinq cent ne ko lii maa la ko jox haddiya dimbale ma nga jël ko mu ne góor gi door a nangoo jël deux mille cinq cent yooyu muy juróomi téeméer ca jamono booba ca jamono booba loolu yoonu màkkam moo ko waral dem na màkka aji jaar na fa ziyaara Cheikh Sidi Ahmad Tidiane door a ñibbi si waat senegal barakallah euh, Chérif Ibrahima Aïdara waxtaan baa ngi jeex te yaakaar naa ne ñuy déglu mm-hmm. Euh, ak ñi ñuy topp ñëpp yaakaar naa dinañ kontaan ci ni ngay waxtaane ndax ki ngay wax euh, yaakaar naa ne dangay ngay tibb ca source ba di ñu ko jox mhm. te loolu mooy li am solo wax ju nekk rek dafay tungoom seede mhm. ñu bàyyi la rek nga tàggoo ci dund kooku ñuy waxtaan di Alaaji Mansour mhm. waaw ñu ngi ci jéggalu ñëpp buñ ci waxee lu ëpp te xam naa sax lu ëpp ndax yàlla loo wax ci moom am na lu des te moom ku nëbboon boppam la malgré li feeñ ku nëbboon boppam la ndax daf daan wax ne rus naa di feeñal ci sama kanami mag ñi muy sëñ Babacar si kon li feeñ yëpp dafa mëntoon a ñàkk mm. waaye lum bon la kon maa ngi ci jéggalu ñëpp bu fekkee wax nañ luy choqué nit mm. wala luy déranger nit in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu barakallahu jërëjëf kon uh, ñi nga xamante ni yéen a ngi ñuy topp ci waxtaan yi ñuy waxtaan ci dund ak jaar jaaru El Hadji Mansour si radiyallahu anhu di doomi Cheikh Sidi El Hadji mali si kon xam naa ñi ngi ndokkeelal Chérif Ibrahima Aïdara Tidiane ñu bàyyi rek sayid yow itam nga yëkkati ñu daaneele ci ay bayit rek yu xam si dafay aju ci kër gi moo xam Seydi El Hadji Malick wala El Hadji Mansour hmm. biñ doon waxtaanee ñi ngi leen di ndokkeel bu baax a baax a baax di ndokkeel ñi ñuy topp ñëpp ci biir Sénégal ak ci bitib Sénégal euh, di jaajëfal euh, suñu mbokk mi nga xamante ni mi ngi ñu euh, dëpp caméra bi moom itam ngir rek bëgg lu yaatal waxtaan wi ba ñëpp jot ci parce que dafay am njëriñ muy Omar Diop kon Omar ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax di ndokkeel auditeurs yëpp ak ñi ñuy seetaan ci biir àdduna bi fa tabarakallah ki leen ko doon présenté di seen mbokk El Hadj Malick Fall wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu من هب من لم ألاقي وبر اشتياق للأيام يولو سيخ سلاحي ما نقل قناة قلب العنين أجول ورقب إلى وادي الأقيق أجول سيخ سلاحي ما نقل يلا محمد وقلت لعيني انتقلت أسبل بأمطار سوقك الأقيقي تسيل أنو كمانات أمامة أيكة يؤيد نول بكاي الديل شيخ سيدي مالك ne والدور يقوب على فق يوسف وترأمني وقنواعي سكول وأخونا شيخ سيدي مالك ne yonent Yàlla Muhammad فواك بدا من أب من لم ألاقي وبر اشتياق للأيام يول لبر الأواقر فمن رام نيله يكل ولا يساء إليه وسولا فالعار عواتسكا من البدي والكل ينتل محمد tuqaddu wala eh, tudwa jawaaya atiiru sa turandoor wa xarqin bi samlaalil awa qad qatartoo bi aadama yaya alma daaw fuulu fawro ne la nii ñu màggal ci Muhammad xoola ma sëriñ Babacar Sy mi borom kaar ba ci Tiwaawoon du ko jàngal du ko wengal fam ko teg daaw la ko teg ren olof Njaay daa lii du man kanamam du man ginnaawam wala xoola ajab do si naan naan ko billaay sunu sàmba mi billaay mën a kanama mën a ginnaawam waa xola sëriñ Babacar Si nanu yoon ci Yàlla Muhammad ki muy adal madina xat bakat bi zahiri laakin li baatina suli xaadimi sëriñ Babacar Si ne almun wujurun wa tuxaa wa siyaadatul asu dari wa ikmatum bi makaarimi yoon ci Yàlla Muhammad kon nag ma duyuufu ida ataw ziyarata روض الرسول وعجب بيت الحاكمين